accompagné ma papa Ousmane Ngom ak c'est magnifique il est accompagné de ses élèves et qu'on l'applaudit très fort papa Ousmane loolu lañ tàmmoon waaye ñu ngi leen ciy jéggalu ci ma patron ndax loolu jin njaaga te mooy njaag muy Amady Dieng mu jàngal ma métier yar ma yow boobu laay teg jëwriñ sa loxo nga joxal ma ko mbooloo mi yëpp waaye ñuy beral loxo ñi nga xamante ne bu liy amee tey ñoom la muy ñi nga xamante ne ñoo wóolu 18 safar jël seen ay doom indul ñu ko confiance boobu amuñu seen fay ñu ngi leen bàyyi ak sunu borom bi tabaaraka wa taala mu fayal ñu leen ci confiance bi di ñaan yalla bu yakartas. tass te it am ci yaakar te xale bu ñu génnee tay di ngeen xamné yoruñu la won di len nax dañ len doon jangal métier inshallah rabbi may lañu tuuti xale leg ñu génn ñu ngi nuyu parents yi bu baax di nuyu ñi nga xamné ñoy invité yi ndax tamit yombul nga dag ticket jël sa temps tok lu mu guddi guddi nga xaar ba mu tas nga ñibi kun defal lol defal nga ñu lu ñu neex ñu leen ci remercier bu baaxa baax di remercier nak élève yi ndax suñu ñëwoo nanguwoo noo jang tay juma mu duma am fit oté nit ñi ne ka leen xol li ma jàngal xale yi ñu ngi ni yañ ji macha allah sa ba rafet nekk samay doom ñep nak ñom ñep sama ay doom lañ joxuma cër nangoo tok jang kon ñomit ma ngi leen di beral nuyu mu mel ni kon dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tënk foofu rek ndax défilé bi fi mu nekk nii moo war a commencé waaye nag dafa am jigéen joo xam ne foog ma sant ko maa ngi doon sant àjjana euh, euh, ak tawféex waaye ren dañ ma koy may ma gërëm sama ndey jigéen ju gàtt ju ñuul jooju fonkoon gi mu fonkoon sama baay moom laa koy sante tey lu ma am moom la lu ji njàgga te mooy njaag fay biram benn waagaan dugg dugg waagaan waagaan ma sañaan jigéen ju sell jooju cër ji mu joxoon sama baay moo waral lii tey kon maa ngi koy sant bu baax kon jërë ngeen jëf ñu wax ne daal ànd ak lu ci mën a xew kontaan nañu ci yéen eh, ñu ngi ñaan ku ci nekk boo delloo sa kër yan sunu borom dafa la ay xéewal yu la bett ba dégg yow lii rek nekk ci atelier bi waaw lii lii mooy yére lan école bi ñaata la nga ma xool di borom eh. gitu. iya, eh. lu ya. def dem jëndiwaat beneen disi léegi disi bu amul ci dëkk bi lan lay def ah yéen di ngeen jël métier bi di ko te lii da ngeen koy war a góorgóorlu baax rek sa mu man ngi Ousmane Ngom nekk directeur école de formation 18 safar couture tey ji nag ñu amaloon benn défilé bu mag fii ci relais 82 doon defaale tamit remise de diplôme pour euh, xale yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci école bi seen 3 ans mat ñu leen doon génnee macha allah défilé bi jàll na ci jàmm xale yi ñaw lañ ñu rafet ñu ngi remercier rek képp koo xam ne jàpp nga ci événement bi tailleur yi nga xam ne ñoo ma soutenir nag samay mbokk tailleur mais nag particulièrement parents yi nga xam ne ñoo ñu wóolu indi ñu seen ay doom ñu ngi leen di bu baax a baax di remercier lañ parrainé loon wala ñu marrainé ak ñi nga xam ne a baax a baax di remercier tamit nga xamante ne wax dëgg yàlla ni ñu koy waxee rek gis ngeen li ñu wane fii maanaam fi mu nekk mu normal xaw a métti yenn saa yi waaw ci comme ni ma la ko waxee rek mooy ñi nga xam te ne ñoo jàpp ci événement bi parce que ñun en général sunu événement ñi nga xam te ne ñoom lañ koy dara jaal day fekk nga ñu am relation ci sa diggante ñun ak yow soit ngay ñuy ñawloo mbaa nga jox ñu rek sa doom donc élèves yi nga xam ne ñoo nekkoon ci école bi tamit te génn daanaka ñoom ñëpp dañoo ñëw jàpp ci événement bi indi sen sen sen alal xam nga def ci indi sen xam-xam def ci sincèrement élèves yooyu tamit ñu ngi leen di remercier parce que mënoon wax ne génn nañ ci école bi rek ñi indi sen ay cadeau ñi indi sen ay enveloppe sincèrement ñoom it ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a yow tamit ñu ngi lay remercier parce que tamit ngi jógee ba Dakar ñëw ci diggante bu gàtt bi ñu la wow nga ñëwul def liggéey bu mucc ayib bi ñu ngi lay remercier bu baax di la wax ne tamit yoon yemul ci benn ñu ngi bëgg suñu ànd gën a yaatu euh, euh, maître congaan mi ñu boole tamit yàlla bu mu ci rëcc dara parce que moom nit ku baax la bëgg lu baax te bëggal képp ku xam te ne xam na la rek mu bëggal lu baax moom it ñu koy remercier bu baax a baax